asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu mbokki Sénégal mbokki réew mi ñu ngi nuyu ñëpp di ziare ñëpp di leen baalu àq ci weeru këru tedd màgg di leen baalu àq di ñaan yàlla suma subhanahu taala ñu génn alhamdulilahi rabbil alamin waaye ñaan yàlla tamit yàlla na fi jële mbas mi ba ñëpp delluwaat seen i liggéey delluwaat seen i jàmm yàlla tey nag dañu ñëw waa AIS li xew démb ca sunu péncum maam mële di lew naña seen ci loolu lañ bëgg indi ay kàddu ndax ñun képp ku ñu xam mooy sàmm ak dajale ndonay mag ñi ak sàmm leen ak dajale njaboot gi ak taalibe ñu ànd nekk benn ba seytaan du ñu mën a jaar fenn alhamdulilahi rabbil alamin yàlla mu ngi defal de depuis 2015 loolu moom liggéey Sénégal yëpp teg nañ seen bët moo tax it démb bi liy xewee euh, fu ne la ñu woowee li wane ne waa Sénégal waa réew mi bàyyi nañ xel AIS bàyyi nañ ab liggéeyam te mi ngi leen ñi ngi gis seen bopp ne mi ngi leen représenté fépp démb moom wax dëgg yàlla daa gën a firndewu ci ñun ndax démb euh, fu ne la ñu woowee Kaolack Tiwaawan tuuba Touba moom la ñu fa woo kenn xamul mu toll euh, Louga macha allah tabarakalla fu ne lañ woowee ci ñoo xam ne sax woo ma ay membre AIS nañ waaye ay dañoo gis ne AIS moo leen di liggéeyal moo leen taxawal mooy défendre diine ji mooy wax buñ ko naree teg luñ ko war teg mooy défendre mag ñi moo tax démb wax dëgg yàlla fu ne lañ woowee ngir xeexoo bi nga xam ne am na démb ci law nañu seen mu xeexoo boo xam ne nag naka jekk ñun AIS depuis bañ commencé Covid 19 bi commencé def tëj jàkka yi. mosuñoo teg suñu kàddu ne ni ñu tëj ni ñu tëjee jàkka yi du yoon nañ ko organiser comme ni ko réew yu bare bari defe organiser seeni i jàkk ndax Sénégal ñu bëgg diin lañ ñu fonk diin lañ waaye dañoo am kilifteef rek waaye duñ fonk diine lañ ñoo xam ne gisuma réew mu leen gën a fonk diine muy Sénégal am na ñoo xam nag bu ñu waxee ñu ne Sénégal waaw diine amu fi nangam amu fi nangam amu fi ñoo ñu seeni wax la waaye Sénégal moom bëgg diine ak fonk diine ke gisuma réew mu leen gën a def ci kaw suuf macha allah tabarakallah ndax dañuy wax ne Sénégal yi boo gis ak lu mu xaw a doy doy war ak lu mu zahira zahira diine moom a nga ci biir xolam ñaar nag dañ ko jaawale mooy kiy jëfe kiy kiy pratique yi dëgg-dëgg ak ki nga xam dafa xaw a sàggan waaye lu bon bon xol ba diine nga ci lislaam nga ci tey bu noroon laal lislaam ñooy njëkk jug ci lay bokk loolu nag alhamdulilahi rabbil alamin lañu yàlla suma sama defal fi ci réew moo tax démb li xewoon leew na ñaseen gis nañ ne amatul murit amatul xaadir amatul tijaan amatul kenn ñëpp jugandoo gis ne lislaam lañ laal benn ponk ci lislaam lañ laal ndax xalifa euh, général dafa fort ci réew mi ak fu mu mën a xalifa général rek dafa foor ci réew mi euh, moo tax démb bi nga xamee ne événement bi xaw na ñëpp a jugoonoo mabbu dem ca fa xalifa ba jublu moo xam police la wala tribunal la. loolu sax damay wax ne xëy na état d'urgence bi ñàkk ak couvre-feu bi waaye kon da gis oto yoo xam ne danañ déparé Touba ñi déparé Dakar ñi déparé Tivaouane ñi déparé fu ne ngir fekk ji ngir fekk ji mel noonu ngir ànd xalifa bi ci dem nekk donc yi. ndax xalif lañ koo lañ lañ convoqué wala boog bi lañ convoqué lu mu ci manti doon rek erreur bu réeréy am na ci boo xam ne ñi nga xam ne ñoo doon woo imaam wala ñoo doon woo ñoo ñoo ñoo ñoo ñoo tax xalifa bi yëkkatiku dem fa fa mbir ma nekk ñoo ñu dañ leen war a ñoo ñu dañ leen war a sanctionné ndax li tax ñu war li tax waa AIS wax lu mel noonu mooy réew mi di Sénégal damaa jàpp ne bu fekkee dañoo dem ba jiital la ci police wala dem ba jiital la ci maanaam maanaam responsable bu ñu jox jàngutoo réew mi xamoo réew mi ba bëgg fa indi démb la xew Kaolack xam nga ne loolu bu ko néew na lies billahi taala lu ne mën naa xew lu ne mën naa xew Kaolack ndax nit ñi moom seen diine ak seen i pas-pas jaral na leen lu ne ni activistes yi jógee naan aar lu ñu bokk ak ni activistes yi jógee naan dañuy tàmm économie réew mi ak wallaahi ñooñu diine ñoo leen gën a gëm fuuf lañ nekk ndax dañuy wax ne borom xam-xam yëpp ak ak ak ak ñi xam ñi xam ñi xam doomu aadama xam nit yëpp dañoo wax ne nit mu gën a foor ci moom mooy pas-pasam mooy diine mooy doctrine mooy mooy diinam nangu na nga laal lépp waaye diinam nag heure boo ko bëgg a jalgaji da nga jaar ci kawam te sax wallahi activistes yi nga gis yëpp ñoom ñëpp ñu nekk ci réew mi de aar la bokk ak ñoom ñëpp ay musulman lañ tey jii buñ jugoon ñëpp bay jugoonoo kenn du des kon dama jàpp ne ñi nga xam ne ñoom lañ jënk responsabilité réew mi sécurité réew mi mu dala ci ministre de l'intérieur wàcc ba ci ba ci ba ci gouverneur yi wàcc ba ci commissaire yi wàcc ba ci police yi damaa jàpp ne buñ buñ demee ba toll fii Sénégal toll xamuñu réalité Sénégal xamuñu diine fi mu àgg ci Sénégal yi xamuñu ab xalifa général ab xalifa général lan lay représenté ci askan wi ñu dem a dem ba ba lu mel ni ñu bàyyi ko mu xew xew la dañuy wax ne ñooñ ñooy responsabilité maa ngi président de la République Macky Sall gis nga boo dara xewee ci réew ak lu manti doon duñ ko laaj ministre de l'intérieur de duñ ko laaj gouverneur yi de duñ ko laaj kenn de wallahi bu réew mi pëccëxoo jaxasoo ba révolte am fi lenn am fi moom mooy seul responsable seul responsable responsable bépp ci kawam lañ koy delluwaat kon nag ñu ngi koy wax fii état état eh, maanaam fii fii mbir yi toll dañuy wax l'heure est grave dañ ko daan wax ci Covid 19 waaye l'heure est grave ci tëj jàkk yi dañoo war ubbi jàkk yi organiser ko loolu la wax ñun dañoo war a ubbi jàkk AS ni mas di plaider di ko bas di wax mooy nañ ubbi jàkk yi organiser ko niñ organiser marché yi organiser ko banque yi organiser ko ministère yi organiser ko fu ne nañ ubbi jàkk yi ñu organiser ko am na ñoo xam ne nag damaa yàppoon ay Sénégalais yoo xam ne heure bu ñu tuddee jàkk dafa mel ne day diis ñoom dafa mel ne diis ñoom ñu waaw Sénégal organiser ñu defuñu nangam ñooñu la la yàlla doon wax ci alquran karim am na ñoo xam julli daal di si ñoom lool mënuñu ko ndax seytaane moo leen jàpp moo tax am na ñoo xam tëju jàkk yi lenn ci musulman yi dafa mel ne da leen arrangé ba boo waxee ñu ne du wóor waaw yow bu fekkee yaa ngi mën a bàyyi sa bon wala yow si jëm bopp ngay dem ci supermarché yi ngay dem ci marché yi def lépp di di dugg ndax faaw nga lekk benn nga dem wala sa sa doom dem wala sa sa sa sa sa jànq dem wala ki nga léegi chaque jour nga mën a def lu mel noonu bari néegu yàlla nga ne wóorut buñ ko ubbee désortement wala nanga maanaam damay wax ne ñiy plaide lu mel noonu wala ñu wax lu mel noonu ñooñu dañoo yaafus te bëgguñu diine te war nañu xalaat seen boppam seen seen seen bopp seen diggante ak seen borom ak julli ba xam nan la toll ñoom waaye daal en tout cas li ñuy wax mooy l'heure est grave l'heure est grave mooy nañ ubbi jàkke yi organiser ko Côte d'Ivoire ubbi na Burkina Faso ubbi na ma du ma wax ay ay Arabie Saoudite yooyu du ma leen wax réew yi nga xam ñoo ñëw te Sénégal ëpp leen ay musulman fuuf leen a organiser wu ga dàq yàlla gën leen a euh, maanaam topp ndigal wallahi lazim bu ñu ubbee jàkka yi organiser ko nit ñi dañu julli jàmm ak salaam te li ñu wax naan propagation wala wala du am fenn du ko am ndax néegub yàlla ja ñun gëm nañ ne ku fa dugg di jaamu yàlla ànd ak cet ga nga war a àndal ànd ak discipline ba dara du la fa dal waaye lii am na xawma ñan ñooy conseil président de la ak ñan ñooy nekk ci yër réew mi ba mbir yi mën a toll fii tey li xew la li xew lew nañu seen tey ah, ah, julli wax nañ ko imam bi wax nañ dañuy julli kenn mënutuñ tey julli léegi bu yeneen penc penc mën a jógee def noonu responsable ñoo ñoo gàddu ministre de l'intérieur ñoo ko gàddu ak njur sécurité réew mi ndax bu fekkoon xam nañ réalité yi xam ci réew mi Sénégal am na yoo xam ne duñu bàyyi muy am nañ nañ nañ libéré nit ñi organiser jàkka yi nit ñi julli ñu def distance def alcosel yi def masque yi loolu bu ñu ko defoon lii du am tey dañuy wax nag koo ne du ma ko topp fi yàgg nañ ko ñun dëpp bi nañ demar xool suñu déclaration ak suñu vidéo yàgg nañ ko def waaye kenn duñu dégg may wax nag réew mi di am na ci ñoo xam ne jug nañ nag actuellement nii ne diine lañ nekkal waaye wallahi nekku luñ diine moo xam ay yenn association la wala sax lenn ci ñoo xam ne tey ji mën nañoo dem ba ci kanam mbooloo sax di julli ndax fii heure bi toll ci wàllu tëj jàkk yi ak euh, l'heure ni mu garaawee dégguñu kàddu kenn ci ñoom loolu war nañoo seetaat seen bopp nit nag li gën doy waar mooy neex damay xeexal diine pare di nekkal état ak di ko jàppale loolu lu garaaw garaaw la te loolu trahison la kon ni ñu waxaat l'heure e grave nañ ubbi jàkka yi organiser ko nit ñi julli sinon révolte dana am te bu amee boobaa kenn du ko laaj gouverneur kenn du ko laaj ministre de l'intérieur kenn du ko laaj président de la république ko laaj ndax wala yas billahi taala am Moussa boo ko doon topp ba mu sës dana dana dana la attaque te nag dañ ñoo topp bañ sës ndax amuñu lu diine amuñu lu jàkk amuñu lu suñu pas kon la ma wax encore une fois danga ko waxaat ay yes li muy wax mooy nañ nañ ministre nañ delluwaat seen seen décision yi ñu jël quoi bu ñu waxee ah waxtaan ñu delluwaat ndax amuñu lu dul suñu jàkk amul suñu julli yi di ñaanal nag suñu xalif généraux yàlla na fi yàgg loolu te wér benn xalif généraux ak fu mu mën a xalif généraux loolu dañoo ñun dañoo as dañoo jàpp ne ñëpp la ji yirif moo yirif murid yi moo yirif tijaani moo yirif ñëpp ndax ñoom ñëpp benn lañ macha allah tabaraka tax lii xew démb damay wax ne bu dul woon ak état la nit ñi jóge ñiy jóge Thiès ñiy jóge fu dem fekk ji du mel noonu comme na amoon sëñ Xaadim Géey ñoom ñoo yirif ñoo ñëpp kon ñi ngi waxaat encore une fois nañ ubbi jàkkee yu organiser ko nit ñu jul ñu def distance loolu bu ñu ko defee ñaan yàlla suma subhanahu wa ta'ala mi jóge fi moo gën ñuy dem a dem ba réew mi nekk ci kaawoo te li ñu gis ne wala yasubillahi taala loolu dama naa xew wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala